Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. li ma la li ca daal si kum cëral nattu kum cëral teg ah ba ba baax baax baax rek la loolu neex sa bopp sant ak suñu borom loolu ci naqari muñ ko ngir sa borom xam ne moo moo moo nattu la rek waaw mu ngi ko daal ci maa ngi nanum ko nattoo ren loo ko doon waaye lu ci mujj <laughs> xéewal gu gu di di di ba léegi ah, sëñ Tuubaa ah, tooñul kenn tooñul kenn ci musta boleeg dara yàlla ne lu yàlla ak yonent bi ana lu lu ko def benn jaamam fawul yàqul fawul juumul lu mu def rek na la ak defar la lu mu def rek ak defar la te mooy def koy dindi nag kenn deful dara leçon bi moom jàppaat nañu <laughs> noonu dong la demee loolu dong la du leneen waaw sant yàlla tey tey sax ci mu ngir yàlla. dëgg la waaw yaar yi rek. dëgg la nañ tax sax ci diggante boobu rek. dëgg la dëgg <laughs> lay sant nag bu baax. ñu ngi lay sant taxawaay bu baax di la gën a sant nag ci Ababacar mi. waaw góor la de moom gone la ma ko bàyyi. jullit la garmi la. waaw <laughs> te Mbàkke ñun mënuñu laa fay.